peñuma saar juróom ma dindi na juróom ñaareelu tayu ga asamaan ni selaw lu mat genn wàllu waxtu noonu ma gis juróom ñaari malaaka yi taxaw ca kanam yàlla ñu daldi leen jox juróom ñaari liit ba loolu amee meneen malaaka ñëw taxaw ca wetu saraxalukaayu wurus ba ñuy taal cuuraay ca kawam yor àndu cuuraayu wurus ñu jox ko cuuraay lu bari ngir mu boole ko ak ñaani gaay yàlla yépp joxe ko ci kaw saraxalukaayu wurus ba nekk ci kanam ngànguune mi noonu saxaru cuuraay li ci loxo malaaka ànd ak ñaani gaay yàlla ya jëm ca kanam yàlla malaakama jël àndu cuuraay ba duy ko ak ay xal ca saraxalukaay ba daldi koy sànni ci àddina noonu mu am ay dënnu ay ay melax ak yëngu-yëngu suuf ba mu ko defee juróom ñaari malaaka ya yoroon juróom ñaari liit ya daldi defaru di waaja liit malaaka mu jëkk ma wol liitam noonu ñu sànni ci àddina yuur ak safara yu ñu boole ak deret ba tax benn ci ñetti xaaju suuf si lakk benn ci ñetti xaaju garab yi lakk te ñax mu naat mépp lakk ñaareelu malaaka ma wolli noonu ñu sànni lu mel ni tund safara wu rëy mu daanu ci géej gi benn ci ñetti xaaju géej gi soppeeku deret benn ci ñetti xaaju mbindeef yi nekk ci géej gi dee te benn ci ñetti xaaju gaal yi yàqu ñetteelu malaaka ma wolli noonu biddiw bu réy yañ ni jum xawee asamaan daanu ci benn ci ñetti xaaju dex yi ak ci bëti ndox yi biddiw boobu mi ngi tuddoon wextan nit ñu bari naan ci ndox mi daldi dee ndaxte ndox mi dafa daldi wex ñeenteelu malaaka ma wolli noonu doorees benn ci ñetti xaaju jant bi ak benn ci ñetti xaaju weer wi ak benn ci ñetti xaaju biddiw yi ba tax benn ci ñetti xaaju leer gi lëndëm bëccëg bi ñàkk leer diiru benn ci ñetti xaajam guddi gi ñàkk leer diiru benn ci ñetti xaajam ma xool noonu dégg jaxaay juy naaw ci digg asamaan naan ak baat bu xumb musiba musiba musibaa ngi ci kaw waa àddina ndax lii yi yeneen ñetti malaaka yi di wol